bi nga xam ne ñuy gis ne ñu ngi koy teg ci kaw Ousmane Sonko sànq ba nga lay dégg nga ne bien vrai que ne Amadou Ba Pastef mi ngi wax que ni euh, li ab manipulation la na ñëpp dal entre mais on dirait que ne président Macky Sall wala régime bi nga xam ne moo fi nekk actuel ñoom ni ñu bëgg ña ngi koy doxal réduire opposition bi à sa plus simple expression jamono ji ci loolu la nekk parce que bukki bu màttoon euh, Karim Wade xalifa Sall on peut dire que ne euh, boo bëgg a màtt Ousmane bien vrai que ne euh, cas yi bokkul mais bu ñu bàyyee li mu dem est-ce que aussi tamit duñu bàyyi régime actuel muy def lu ko neex ci candidat candidat nit ñi. non non non def defuñu lu leen neex déroulé ñu leen neex réduire ñu opposition à sa plus simple expression. ñoom ñoo jaaxle parce que déjà. Euh, nguur gi jeex na. Mhm. pouvoir bi fi nekkoon régime bi fi nekkoon. waaye ñoom jeexal nañ jeexal nañu tàkk. Mhm. rawatina amuñu candidat amuñu sax candidat xam nga lan la ñu am. lan la ñu am. Euh, général Moussa Fall la am Antoine Diome administration. Amadou Ba nag. Euh, Amadou Ba premier ministre. Mhm. non kooku. kooku amul amul amul amul amul benn benn poids munul mu munul munul munul euh, influencer ci daal kooku dañ ko fi teg nii rek te waa këram yëpp sax ànduñoo ak moom kon ñoom réduiruñu l'opposition à leur plus simple expression mhm. mais au contraire dañu dañu doole mais xoolal phénomène Ousmane Sonko bi ni muy ni muy jëlee ampleur partout ci Sénégal mhm. partout partout ci Sénégal xool ni muy jëlee ampleur partout dans la diaspora mhm. bitim réew ku ñu réduire à sa plus simple expression mënu la tere nelaw noonu Macky Sall fu mu dem dégg riiru Sonko ba ci Medina Baye ñu ngi koy recevoir yaa ngi dégg riiru Sonko ci biir salle mm-hmm. mu dem États-Unis partout mais kooku ñoo ñooñu la ñu réduire à la plus expression non dëkk bi foo tourné nit ñaa ngi takk ay bracelet mm-hmm. Pastef dafa nekk réalité ñi nga xam ne ànd ñoo Pastef sax fi mu nekk nii injustice bi jàpp na leen ba dañuy jàppale Pastef ci mhm. injustice bi ñu ko teg nii muy sama genre geeg genre dàmbur geeg ñeneen ñeneen ñeneen. ok rek la ñu nekk di consulter wu suñu biir parce que dina am taxawaay bu ñu ci war a am ci fan yi di ñëw. parce que mhm. démocratie euh, askan moo koy sàmmal boppam. Mhm. te quand tu as accès à à à au débat public dafa am taxawaay bu lay wax. donc li war citoyen yëpp citoyen bu nekk dana waree wareefam mais li du lu mën a sotti encore une fois du décision administrative. benn fonctionnaire moo bañ a joxe ay këyit point mm-hmm. ok du Sonko dañ ko dindi ci liste électorale benn fonctionnaire moo refusé joxe ay fiche la mu ci teg nag pour leelee ko naan ay Ousmane Sonko bokkul ak yooyu foofu àgguñ fa bés bu ñu fa àggee. Mm-hmm. dina laaj beneen taxawaay bu dul débat public. parce que dafa am loo xam ne débat rek wu ko. dafa am loo xam ne ay acte politique ngay posé. Mhm. wala ay acte citoyen ngay posé. Mhm. wala nga imprimer rapport de force. parce que am na liberté yoo xam ni duñ ko mayee da nga koy fokkati loolu kese la. ok régime bi donc ñoom ñoo jaaxale dara newutu fi yi mu ngi tàggoo fépp te moo leen yor. fi mu nekk nii mais amuñu kenn. yaa ngi dégg ñu naan ay y a des dissensions au sein au sein de l'APR ñii dañu bëgg nekk candidat ñii dañu bëgg nekk candidat ñii dañu bëgg nekk candidat mm-hmm. xam nga te ñu ngi am na benn information bu ñu vérifier parce que il paraît que bërki dem permettre nañu vingt cinq personnes euh, ñu déposer parrainage euh, ñu ñu ñu retirer seen fiche plus te commencé bu ñu euh, joxe joxe fiche yi ñooñu fan yii di ñëw dinañ leen wax ñan la bu buñ ci amee lu leer. ñoo ñoo xam ne dañu retirer seen seen te tey jii jotagul woon nga ne. mooy ñoo xam ne retiré nañ seen fiche te délai bi ñu joxoon muy tey accès gul woon. waaw. Ah, c'est grave. waaw donc yooyu yëpp ay wane ni fu mu nekk nii ñoom dañu nekk di di di di di jalgati mais askan wi mu leen di xaar parce que de toute façon comme ni ko Amadou Ba waxee dara amagul l'opposition ñi nga xam ne ñoo bëgg rupture ak changement Sénégal. Mm-hmm. mooy ñi nga xam ne ñoo nekk di changer Afrique de l'Ouest la jeunesse panafricaine panafricanisme boobu nag ñi ànd ak Pastef ñoo ko incarné parce que li ci ëpp amuñu carte Pastef mais amul ku li ci ñi ci amul carte sax ñoo la gën a dogu ci cause Pastef mm-hmm. foofu la erreur bi nekk depuis le les événements de deux mille vingt et un ba léegi gouvernement bi tiré benn enseignement chaque fois nag dinañ am surprise te nañu dem parce que mbir mi jeex na quatre mois yi ñu doon moo ci des quatre mois yi entamé nañ ko donc mbir mi ça va aller au pas de charge on a presque jusqu'à décembre pour plier le processus électoral mhm. changement moom ala kulli al day am 2024 te le le candidat du peuple fera partie de la course parce que mënuñu exclure la majorité d'un peuple d'un processus électoral élection législative yi dafa wane ni opposition bi moo jël moitié élect assemblée nationale malgré sàcc te bu ñu defoon ay élection tey wàllu day gën a aay parce que dañ leen a weddi fépp te ñëpp ñu ànd ak ñoom seen i masque ngi feeñ ñëpp ñu lëkkalook ñoom seeni maska masque ngi tombe kon ñoom ñëpp la ñuy bu suul ñu indi lu bees ak ñeneen ñu bees foofu la Sénégal jëm te loolu kenn munu ci dara kenn mënu ci dara foo yoon mënu ci dara jaay doole mënu ci dara répression munu ci dara waaw rey ay sénégalais tamit mënu ci dara. parce que ñu ñuy menacé rek. gis ngeen euh, gàmmu gi. général Fall dem naan fii ku fi jéem safaan. Euh, da dana dajeeg safaan danañ dal sa kaw effectivement. général war na nekk di menacer une population boo xam ne y'a rien. fii kan moo fi mës attaque ay ay màggoog ma ak ay ay ay ay ak gàmmu ban terroriste moo am Sénégal bu ñu menacé askan bi. ngay gis ay ay ay aide de camp maître Sélé Ndiaye di dem. Mhm. ci cérémonie religieuse. le mhm. gouverneur du palais. le colonel Adama Gueye ki commandé munitions yi. di di dem dem ci ay ay moo tax ma ne la Macky ñooñu la dese. ñooñu la dese ak Antoine Diome mais askan be leen ëpp doole fuuf. bu buñ ci àggee rek dina leer incha allah. est ce que xëy na du ay euh, xëy na def ko du ñaaw ñaawteef wala yooyu ñuy wax que ni ku fi ñëw pour def euh, nag su mën daan jàll sa kaw parce que gis gis nañu président Macky Sall mu ni ñoom suñu perte nguur gi ce serait catastrophique. waaw mais kooku kooku ñàkk démocratie la parce que ñoom judduwuñ ci nguur nguur gi Ablaye waat moo ko yoroon ñu jël ko ci moom Abdou Diouf yoroon ko pendant vingt ans ba ñëpp foog ni du fi jóge Ablaye Wade jël ko ci moom Senghor yor ko ba doyal jël ab Abla Abdou Diouf jox ko nguur gi dem yoon ngor googu Senghor amoon. ngor googu Abdou Diouf ak Ablaye Wade amoon ba bañ leen gañee ñu nangu ko. Macky Sall moom constitution ci boppam moo ko moo ko éliminé moo ko gañee moom jeexal na. nankoon na fi troisième mandat yàbbi na ko par force. jéem na dàq élection yi génn na ci par force. ñu imposer candidat bu mën a gañe fii opposition parce que Pastef même bu tegoon euh, benn xuusmaa ñàpp sax. Mhm. kooku day gagné Amadou Ba. comme ni Jamil Sané gagné Amadou Ba parcelle nga xam ni kenn xamu ko woon tey jii ñu dugal ko ci kaso bi di ko sëfal ay affaire yu kenn xamul. Hmm? Mhm. ñoom mënuñu gagné dara fii ci dëkk ñoom seen biir kese bu ñu leen bàyyi woon ak élection baa daa benn bokk yaakaar kese Amadou Ba mii du fa gagné. Asamaak nag contre opposition bi. donc ñoom c'est un régime fini léegi seeni scandale moo leen topp moo tax ñu ragal di mooy. xam nañu Ousmane Sonko bu ñëwee même bu bëggee yolomal ñi ànd ak moom dañ koy bañ sama genre geeg ñeneen parce que il faut ñu régler suñu alal yi ñu sàcc rapport Cour des comptes dinaa leen jox benn exclusivité mhm. pétrole Sénégal commencé nañ ko jaay depuis le mois de juin oru Sénégal ñoo ko reconnaître waaw ITIE moo ko bind ci rapport am du waxu Clédor Sène parce que xam nañ ni ñoom dootuñu dootuñu fekkee loolu commencé nañu jaay te nee nañu exploitation bi mu ngi commencé mi 2024 mais commencé nañu jaay déjà loolu ci fan la tegu loolu naa ci def communication indi ci lu gën a gën a gën a leer. Mhm. kon yooyu dañ koy lijjanti. ñaawte fi fi am doomu jàmbur yu ñu rey plus de deux cent personnes leen ay pick-up jóge ci siège parti politique. Mhm. Euh, euh, APR cinquante pick-up yëpp ay nervi am ay armes colonel Adama Gueye mi demoon Tiwaawoon ak Macky moo moo signé mi ak euh, munitions yi pale mooy destination finale ñu rey ay nit ay médecins attesté nit ñi par bal lañ leen rek des centaines de personnes amul enquête amul coupable amul dara. Mm-hmm. cinquante pick-up mënuñu si jàpp dara. léegi ñu naan ñi menacé màggal beeg gàmmu geeg yooyu ils vont voir mais ñii kat lañu ñu yëpp pourquoi on nous menace nous on et on continue de nous loolu nag. ay bés ngi ñëw ci suñu kanam danañ ko régler et je prends toutes mes responsabilités danañ ko régler léegi régler bi gën a sedd mooy. Mhm. ñu bàyyi démocratie bi déroulé wu. nit ñi voté choisir ku leen neex mais mënuñu def ñaaw yi ba pare bëgg ñu étouffer di ñu menacer bëgg exercer encore ay répression ci ñun loolu bu amee moom y aura un vainqueur et un vaincu et le peuple sera toujours vainqueur kooku moom abon bon entendeur salut. merci beaucoup d'accord merci beaucoup ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. voilà mi ngi noonu éclaircissement yi leer na nañu jëm ci. Euh, loolu la jëm ci wàllu bi Ousmane Sonko ak euh, maanaam wàllu parrainage beeg li ni mel est-ce que dina mën dem du mën dem explication yi daal dinay leer na ñoom ba njëkk ni ab euh, maanaam kenn koo xam ne ku nekk ca DG DGE moo ko daal di moo dal di jël li nga xam ne moom mooy boobu le décision jëmale ko ci mbir Ousmane Sonko mais nekkul lenn loo xam ne rek wàllu justice la kebe